xam leen jëf. bul wax. noppi bul nooyi. waaw bul def dara. bul respirer. gis nañu da nga sob nag. waaw daañu compte léegi mais damaa bëgg a xool tuuti. compte compte te du waa. je regarde pas compte compte te du waa. waaw. waaw. waaw. maa la ko defal sama anniversaire. ñu ngi sant bu baax laam ñu ngi sant bu baax laam. salaamaaleykum. ça va ça va bien salaamaaleykum. xaaral ma defaraat sama veste. waaw waaw taxaw la. dëgg la kaay di toog fii ma ma ma ma ma laqatu ak moom ah. yow yow <laughs> et Bijou. noo def ba jot ko. taay maire bi amul jot. non bi amul jot. ah bi amul jot alors d' abord euh, euh, nañu xool nañu nañu est ce que mën nañu déglu woy bi kon d' abord. Ah, écoute la chanson en vidéo ah vas-y bisous. Euh, Mao. bi ci animation bi vidéo eh <laughs> génn balaa le 24 décembre euh, pour ñu tànn parce que man ci staffam laa bokk en même temps ndax euh, damay faral di wax ni actionnaire la ci li may def ah euh, ñuy tànn alors au lieu ñu tànn beneen ñu génne woy bii nii def ko def ko lancement ñu kontaan ci lool tey nga seet si ñu laam kontaan nañu kontaan nañu. amul fenn. sa xarit. waaw sentiment la. bëgg goo koy fay. wallaahi. te yow da nga maa bëgg. foo génn na laan yaay yaay Pape Cheikh Diallo. ak ki na laan rek koy fay. ku soxla Pape Cheikh Diallo sax. wallaay léeg sama kër ga ay ma la woon leetar ya fan. <laughs> ma ne la ay xale yu doon bàyyi leen ma waaye. Ah, ko amee ci sënit. Mhm. da koy fonk. Mhm. maa la bëgg. santoo mhm. ma way. waxoo dara. maa la bëggal sama bopp maa la woyal sama bopp. waaw dëgg la. sama bopp. maa la xoolal sama bopp. ngay sama doom. ma def la comme doom ma jur. bëggal la sama bopp man sama xol. woyal la sama bopp. mais sañ nga loolu xam nga. Euh, <laughs> bon on va ñu wax ci ñu wax ci euh, euh, CD bi. Mhm. ndax le 24 décembre ci la ñuy célébrer 40 ans yi. Mhm. man nag fii ba 40 ans yi incha allah bis bu jot. Mhm. li ko tàmbalee tey. dinaa def jour J moins. dëgg la ci guddi gi ndax nag 40 ans du lu ndaw. dëgg la depuis début 1970 ba tey. yaa ngi ci woy yi. waaw ba ngay wootee muy fees ca stade la woon c'était en 1975. dëgg la. stade Iba Mar Diop la. stade Iba Mar Diop di amitié léegi. stade Iba Mar Diop rajo nuyu rajo. nuyu di rajo. waaw dara rajo plutôt 1975 boobu xale yi sax. te loolu yàgg na. loolu yàgg na bu ma commencé way ak léegi dafa yàgg Pape Cheikh. Mhm. depuis 74. Euh, ku teel a parce que dama teel a bëgg a jàppale sama waajur yi. bi mhm. ba bokk na ci tax sax ma bàyyee jàng. Mhm. te pourtant noonu laa ko mën woon de. wallaay noonu la jàng <laughs> waaye boo juddoo ci famille. Mhm. gis sa famille da ngay relever sa famille. yëkkati leen. ma teel a xam loolu. sama yaay ju baax ji yal na yàlla. Euh, woyofal suuf ci kawam dafa ma daan wax naan Fatou Kiné ma ne ko sàmm mu ne bi nga xam ne sa loxo di jor ak sa loxo càmmoñ ba tey laa noppaliku. Mhm. loolu li ko waral mooy teel na ma bëgg woy mhm. def ci sama la def ci sama fayda. Mhm. jàng ko. donn ko nag. sama waajur yi. bu góor ak sama waajur bu jigéen. 1900 euh, sama papa moo nekkoon sama manager toujours dama koy wax. moo doon ah. doon manager waaw <laughs> dafa daan wax naan. Euh. bu la fa quatre vingt quatre vingt mille franc booba xaalis la de. Mhm. Mhm. du Ndiaye Coumba Rose mu baax mi daan def fu mu daan joué danaan ku mënta jël ki na la ma jël. Mhm. loolu fàtte xaju fi. wallaay fàtte xaju ñu def ñuy rajo ñu Abdoulaye Nar Samb. Samba Jabare. Amad Ndiaye Samb. waa Kanni. ñëpp daal. keroog la Ndeye Khady di concours ak maire Tocosel. Tocosel. Mm. Mhm. kër la ma la Ndeye Khady Niang fas la ñëwee duma ko fàtte mukk sol ay bot du <laughs> Ndiaye Rose Ndiaye mu wër pour tuuru est eh, eh, eh, Iba Mar ñëpp ñëw taxaw. boo ko dee méngalee mu ngi mel ni euh, euh, Papa Ndiaye coppet rek ak ñoom Ndeye Gueye. ci jamono yooyu parce que ñoom ñoo xewoon sax ci fecc ak tëgg. keroog mel Tocosel moo jël prix bi. Mhm. ndax dafa ne tëggal leen ma yaa ngaa ñangaab xale yi xamuñu ko xale di ñangaab ndeysaan ñu tëggal ko mu daal mu fetal bu ma fekk ak soxam tuyam du ma jaaxal wallaay tuyam du la jaaxal <laughs> la wax ndeysaan moo ah, ay nag ma ay sëriñ Tuubaa sama sang bi ma amul ko dul moom wallaay Cheikhul Khadim stade bi wàcc ñu woo ay alkaati di ma yóbbu ci laa commencé sama carrière dan ñoom Njaga Mbay def nañ benn euh, Boubacar Guiro mas na def benn ensemble bu ndaw man Njaga Mbay Njaay Sàmb ak ñëpp ñuy def dem fu nekk mhm, mhm, mhm. ba 78 bi nga xamante ne bii def nañu ñu onda ndeysaan bi ma génnee dañu wax ni prix bi tey Kiné Lam lañ ko war a jox. xeetu prix bu nekk am nga ko. am bu nekk am takkal na la ay raaya. ba raaya bu ordre national du mérite ordre national du lion. studio yu mag yu ne liggéey nga fa. lépp dama wax njëkk am fitu génn ci euh, euh, traditionnel bi. dem carrément ci moderne bi lu ñu xamul woon ci euh, ñiy woy par exemple Sorano. waaw sama mm-hmm. sama premier CD. Mm-hmm. maa ngi ko defee studio ZBZ. Mm-hmm. Abidjan laa ko enregistré. Euh, lu jiitu loolu en 82. boobu laa jëkk def euh, benn CD waaye boobu. boobu bokkul ak léegi booba Youssou euh, maa jigéen mii booba kii moo am. étoile 2000. étoile 2000 waaw. ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko ñoom Marc Samb. Mhm, mhm. ñoom Ala Seck ñoom ci. Mhm. Kabou Gueye joué basse. ba léegi dama koy déglu ci rajo yi ñu koy teg. wallaahi mais en 89 ci laa. dem Abidjan. te boobu j'étais en état de grossesse ba am huit mois. maa nag ndeysaan ma ni duma dem. Euh, ndeysaan Silla. production Silla production Ibrahima Silla. ma jaay nag cent mille exemplaires. ci la borom kër gi di naan. Kina Lam elle a battu le record des ventes qui n'a jamais été réalisé. wallaahi wallaahi c'était en 89. en 89 en plus ah. voilà disque d'or waaw ah, ah, que fii Sénégal. Euh, peut être du ñu joxe ay disque d'or ak ah, bu ñu ko doon joxe defe naa am na. Cheikh Tidiane Tall wax na ko ay disque d'or. Euh, nee na Cheikh Tidiane Tall ne woon na bu fekkoon tamit dañuy jox. Ah. Ina Lam nii lañ koy jox. wallaahi day génne wàllu album danaa nekk événement fii Sénégal. Ah, waaw waaw ah. en 90 ay génne Balla Aïssa Boury. booba hmm. booba booba kaset jar na de. wallaahi wallaahi ndeysaan ay ay Diourbel Tambacounda euh, Saint-Louis. dëkk yëpp hmm. dañuy ñëw. taxaw ci euh, Talla Diagne. wallaahi di xaar CD bi génn pour ñëpp jënd. wallaahi muy jaay ay yu dul jeex. mooy loolu euh, loolu nag loolu nag moo tax euh, Sénégal yëpp war a jóg pour sargal ko moom le le 24 décembre euh, ci 40 ans yi 40 ans yooyu nag defe naa day nekk fête nationale fii ci Sénégal fii ba le 24 décembre ma fàttaliwaat leen ko lépp lu jëm ci événement bi télévision Futurs Médias def ci taxaw lu tax datu 24 bi waaw datu vingt 24 bi nag sax datu 24 bi man jàppuma ko mm-hmm. dama ñëwoon doon wut date bi ñu jox ma xam nga bu yàgg laa waroon def sama anniversaire. Mm, mm, mm. waaye yàlla na dogal na sama sama borom kër feebar ci diggante bi. Mm-hmm, mm-hmm. sama jëkkër aussi feebar. Mm-hmm, te moom daf la yàgg gunge. te daf ma yàgg gunge waaw. ma woy ko woy bu rey ba dogo ko dogo faale maaw joor sama jëkkër ju baax ji. ren rek laa mës a def anniversaire boo xam ne euh, ànduñu ko. waaye moom lu ma mës di def ci àdduna. moom mooy jiitu sax. nekk si moom lépp. ma koy ñaane yàlla may ko gudd fan ak wér ginnaaw ma sante sama borom julli ci Seydina Mohamed sant Serigne Touba sama sëriñ ak sama borom kër bu baax bii mhm. fa ma jëm grand théâtre mhm. ginnaaw sama borom sama borom kër bu baax bi rek laa fa yaakaar ak Cheikhul Khadim sama sëriñ mhm. ah loolu nag bu fekkente ni dafa am ah teraanga bu nekk yàlla defal na ma ko ci woy ah maa ngi woo ñëpp nag maa ngi woo sama xarit yi sama soppe sama fans yi ñëpp daal maa ngi leen di woo Grand Théâtre comme ni ma ko tam tàmmee def ci sama anniversaire yëpp ndax léegi laay jëlal anniversaire mais bu njëkk ba dama naan def 89 90 91 92 93 94 95 chaque année la woon da ah. la daan am ah. mais léegi nag xam nga dañu koy jël waaw ñu koy jëlal bu weesoo loolu itam avant le 24 est-ce que euh, album yi dina génn waaw album bi yaakaar naa ni avant le 5 dina génn incha allah génn fii incha allah bu soobee yàlla euh, c'est vrai que single bi rek la dégg mooy euh, bi nga woy sa doom waaye am na itam yeneen woy yoo am na lu ma sàcc woy naa bu baax a baax dama dama dama li ma bisu naan pourtant moom magalu la baat bi mu ngi mu ngi ah, mën a woy ba tey waaw kenn du man mën a di da nga xool ci borom kër gi rek. waaw waaw man ak madadi. mënta am. moo tax looy def na ko jàng ba mokkal ko. man ak manadi mënta am mën nga dem nag ba nag ca kanam nag nga daal di bàyyi ak xale yi nag ñu dem. waaw. Mado waaw. Uh-huh, uh-huh. d'Italie pour la dame. voilà voilà suñu benn xarit suñu xarit bu woote Italie kan la. Euh, Khady Diaw. Uh-huh. depuis Italie. voilà Khady ñu ngi koy nuyu bu baax ah. Oh, suñu xarit yooyu ñu ngi woote koy nuyu bu baax moom Yacine Diop sama xarit. Adja Yacine Diop. barke alo alo alo voilà allo euh, allo allo allo waaw ñun dégg dégguñu ko bu baax en fait euh, bu fekkee mën nañ ko yokk tuuti ñu mën ko déglu mu wax ak rapidement Adja Kiné la Mam Bamba lii nuyoo bi la rek waaye euh, samedi ci guddi dama koy invité ca sama kër ga Nduxura kër Baye Seex ñu waxtaan bu baax après du xool nag chaque jour naa def émission ak Kiné Lam maa ko wax chaque jour fii ba le 24 décembre chaque jour ñu émission maa la ko lool am naa ci droit chaque jour mu mobiliser antenne bi pour Kiné Lam maa ko wax. Ndiaga Ndour du ci mën dara euh, Boubou Ndour du ci mën dara mais chaque jour Kiné Lam ak man nii dinañu jàkkaarloo ak. képp koo xamante ni euh, yaa ngi euh, jàpp ci euh, guddi gi ku ci mel ni Pa Mansour Mbaye ak sa xarit yëpp Adja Fatou Guewel mhm. mhm. mhm. naa ko tubarkàlla macha di invité koo xam ne muy Fallou Dieng. Fallou taalibe Serigne Bamba wallaay sa anniversaire bii passé tot na ko. di invité nag tubarkàlla na ndox waaw mooy <laughs> Ismaïla Lo Ami Mbengue. mbokk mhm. tam sama xarit la. ndeysaan Ami Mbengue moom fu mu nekk léegi gëj naa ko gis de man de sama xarit damay gëj naa ko gis. waaw ah, Alija invité naa la kii moom. waaw Alija moom il faut mu ñëw moom ah def tagalam bu gudd. yaayam sama xaritu benn sa accident bokkoon na saa wala naa ko bëgg fii sama sëriñ bi. ndeysaan bi sama yeneen xarit yu dul jeex. yoo xam ne ñu ngi nekk ci seede bi. tabaarkalla macha allah man ngi invité Sénégal yi. bi man moomu ma ko. sama fan. wallaahi. Sénégalais yi ñoo ko moom. jigéen ñi. ñoo ko moom. waa Sénégal waa réew mi. ñi ma yàgg supporté. ba may xale ba léegi samay début ba léegi. sargal bi daal sargale naa ko waa Sénégal. di ñaan. ñëpp parce que loolu mooy sa particularité professionnalisme saa yooyu tëgg lépp dafay teel a commencé. ñu teg lépp ci programme normal bi. waaw kuy dañu ci yàlla defal ndam lu kaw si amiin amiin amiin wallaahi yàlla rek ko am amiin amiin mu ngoog kon après màggal euh, il faut rappeler ci la ñuy joxe numéro bi ngeen di defee seen ay réservation ndax màggal gi bu dee le 11 la buñ ko jógee rek bu soobee yàlla euh, di ngeen am point de vente yëpp Euh, muy euh, buntu Grand Théâtre buntu RFM buntu télévision Futur Média euh, gise yi nag bu ñu ko ubbee ci ay heure dong la ñuy joxe ci ngeen di mën a am billet yi ah bu ngeen defee seen ay réservation ba ñu ibbi gise yi di ngeen mën a dem jënd billet comme ça ngeen mën a teel a pare pour tubarkalla ajatu ki ne la Mam Bamba le 24 décembre 40 ans de carrière sama wax nag du ci bëri waaye maa ni bis bu jot ma mobiliser antenne bi chaque jour. voilà ah, waaw voilà kenn di ko bëgg ma bëgg <laughs> di kenn kenn di jël woy yu ma gën njëkk a jël woy voilà maa njëkk a gën njëkk a bëgg woy bi <laughs> neex na voilà disque d'or lay am ndax woy yi ñu fekki Mamadou Mouhamed Ndiaye pour revue de presse bi euh, Mahmoud ñu ngi lay nuyu yaa nga taxaw ca boor boobu depuis sànq Mahmoud comment il peut me donner ah Mouhamed Ndiaye Mouhamed Lakhlouf waa lax luuf kay. <laughs> Mamadou Mamadou Mouhamed Ndiaye. oui Pape. waa ci ne sant Serigne sar mbaa yaa ngi ci jàmm. waaw maa ngi ko góorgóorlu rek. yaa ngi waaj na 24. waaw mais wuy ma. waaw xam nga suñu way bi li ci dàq. waaw mooy booy bi demee ba jeex ci lañ may soog a way xam naa gars yi duñ ko déglu nag. Ah, ah mooy fi wayu wàcce noonu ci la wax ni mbokk ndey mbokk ndey Mamadou Mouhamed Ndiaye. merci beaucoup mais wax nga man dégguloo ko sax. wax ko na dugal studio collé ko ci nag parce que pour ñu ko daanoo rek way bi jeex na. après lañ ma ciy soxla bisu Ndiaye yabaate naa ma yow danaa wooloo sa yaay ma boole ma ci way bi ma ne ko way bi ñëpp lañ ko way. dañuy dem ak studio wayaat way bi dugal ah kenn merci waaw dëgg la. bisu wallaay mën na nekk. bisu Ndiaye. li ngeen bëgg yëpp mën na ci ne. wallaay. yooyu 40 ans nag. Uh-huh. dama ko fonk nag 40 ans de carrière. Uh-huh, uh-huh. dégg ci bis lu ne. dégg ci ak ay bànneex. am mm-hmm. ci ay amertume. wallaahi. ah si biir ci sa réew. Mm-hmm. dem ci plateau yu bare bare bare. yéeg mm-hmm. ci seen yu mag yu ne. dem ci àdduna bi. depuis 89. Euh, bi ma génnee Sorano parce que sama euh, dama nekk théâtre national dañu ne Sorano. ma mhm. nekkee CD bu ko nekk. man contrat yi di jeex. wallaahi donc mënu ma woon cumuler deux fonctions. à la fois non non c'était impossible voilà voilà mm. voilà léegi nag mën ma choisir. Uh-huh, uh-huh. Euh, def sama carrière. voilà te nga dugg ci lu nekk orchestre la uh-huh. kàggu. dem ci àdduna avant loolu dem naa ci àdduna bi yëpp. soixante dix neuf laa jëkk dem Paris. wallaahi wallaahi wallaahi wallaahi. yaakaar naa ni def naa def naa. foo yaakaar ni rek. ñu leen fa war a dem dem naa fa du Europe. Uh-huh. du Asie du Amérique wallaahi. Afrique gi nga xam ne ci laa nekk ak Sénégal. seen continent yi mat na de bis bi Sénégal yi. Ah, seen continent yi mat na de seen continent yi mat na de kon léegi ñu bëmaax la nga dem ci revue de presse bi.